mat na ko wala matu ko mën naa ne loolu sénégalais ñoo koy jugé après mais li ma la mën a xamal mooy Amadou Ba wax nga ko léegi dañ koy prêter ay attaques ay ambition loolu depuis ba mu nekk ci gouvernement président. depuis xaw na ko wax ah fii ci 7TV. avec Maïmouna Ndour Faye toog na mu ni carrément ben war na mun a nekk. non déggul ma rek depuis ba mu nekk ci gouvernement président Macky Sall boobu sax duggagul ci langue politique bi maanaam président Macky Sall yónni ko woon sax Parcelles nit ñi da ngay nekk ko contact avec certaines personnes non Macky moom ku ànd ak moom di nga dina la politique loo yaa xam technocrate ñu koy prêter laa wax si aux yeux de l'opinion ou bien certaines ngi koy xalaatee depuis Amadou Ba duggagul ci politique sax ñu ko mais euh, ba mu duggee ci politique ak léegi dugg ci euh, euh, président Macky Sall sóob ko ci jusqu'à présent la lañ doon wax Amadou dafa bëgg a remplacer président Macky Sall bu ñu ko wàccee ci gouvernement bi di ko dégg day ber yëfu boppam te moom rappelé waat na ko fii nii ba mu fi ñëwee que y a des personnes y a des responsables doon ñëw ci moom naan ko beral sa yëfu bopp ñu ànd ak yow et pourtant toog ne deux ans yoo xam ne waxul ci presse bi wala mu wax ci loo xam ne ci président Macky Sall wala ci gouvernement bi loo xam nit mën na ko cee ngàññi c'est ça qu'on appelle un homme d'état tout d'abord mooy koo xam ne euh, dina mën a d'état un fin tacticien mën am mën na am ki yow tu es un fin comment tu as pour regrouper deux personnes yoo xam ne même parti lañ bokk ak euh, ak laas nga leen parce que loolu am ci jublu un fin loolu ñun ñëpp nous sommes des fins techniciens parce que nous nous tous nous sommes des personnes yoo xam ne euh, dañuy raisonner par rapport à à une situation donnée pour trouver des ah, solutions donc loolu moom euh, voilà quoi donc Amadou Ba tey jii bu ñëwee ànd ak président Macky Sall ci ngor jusqu'à présent Amadou Ba n'a jamais dit qu'il est candidat c'est ça la particularité de l'homme il a il n'a jamais ma kenn wax rek fan la génn taxaw ne man Amadou Ba je suis candidat la différence des autres c'est que ñi dañ ne ñoom ay candidats lañ bëgg nañu. mais loolu courage la Abdoulaye Daouda aussi n'a ah. pas dit qu'il est candidat. Abdoulaye donc Amadou man ba léegi xooluma keneen de. non non il ne l'a pas dit ouvertement. plateau euh, may ma rek ma ñëw bokkum di ma déglu. ñoo bokk fu ñu fu ñu far ndax ñoo bokk fu ñu ñibbi ñoo bokk benn carte. donc Amadou Ba ba léegi taxawul ne man. bëgg naa non du baab on est de la même famille si aujourd'hui quelqu'un d'autre nous attaquait mais nous allons nous défendre ah. ensemble nous sommes dans la dans le même parti politique ñoo bokk structure ak lu mën a xew jusqu'à quand jusqu'à ba ma leneen di xew donc Amadou Ba mosul taxaw ne man bëgg naa mais ñun ñi ànd ak moom ñun ñoo taxaw ne ko grand ñun ñoo bëgg nga nekk candidat parce que remplir nga critères yi tax nga nekk candidat li tax ma wax ko te dafa am loo xam ne président Macky Sall ñu si rassurer le président a dit que le choix que je vais faire c'est le choix de la raison parce qu'il s'agit d'une question d'État et récemment yéen ngeen relaté ko yéen yéen waa presse bi dafa ne je suis pas dans le sentimentalisme donc loolu rek mën na indi lu bëri loo xam ne nit yi mën nañu ko recouper te mu teg ci ne le candidat que je vais choisir dafay ne candidat boo xam ne il est capable de gagner et ça va être un candidat par la population donc ñun ñëpp dañuy fàtte des fois que ni c'est les Sénégalais qui vont voter l'APR peut avoir un candidat mais si les Sénégalais euh, gisuñu ci candidat APR boobu noonu lu war a tax ñu war ko voter est-ce que dañ ko dañ ko voter. yeggaguñ ci vote bi de. non damay ñëw damay raisonner damay raisonner candidat foofu moom boo ci bëggee am une réponse exacte da dem laaj président Macky Sall. mais fi may wax ni ñun dañuy wax ci ay euh, dañ dañuy raisonner selon situation bi nan la war a mën a demee ak nan lay demee. Hmm, mais le dernier mot revient le dernier mot revient au président de la république maintenant Amadou Ba dafa nekk koo xam ne euh, sur le plan institutionnel comme kii nu mu ko waxee tey jii c'est le premier ministre il y a qui te disent que moom c'est le candidat naturel c'est le dauphin naturel mais lui li mu wax moom mooy dama nekk ci liggéeyal Sénégal ci loolu laa nekk leneen luy am nag président Macky bu ko décidé suñu ci sóobee dinañ ci dugg taq ci ba mu saf sàpp dem ci population wax ak ñoom mais nous ñun tamit tooguñu di xoolee nous la pop nous nous les jeunes de Amadou Ba et les femmes et les sage ñi nga xam ne gëm nañ sa vision gëm nañ ne war na mën a jiite coalition bi ñu ngi wax population bi population bi tamit réponse yi ñu am wax dëgg yàlla euh, satisfaire nañu parce que li ñu lay wax mooy ku yaru la ku mën a liggéey la te euh, te koo xam ne la wax dëgg yàlla mën na am ak jàmm ak ñëpp ndax Amadou Ba nekk na koo xam ne amul frontière ak kenn tey jii mënuñu ma wax biir Sénégal kan moo am frontière ak Amadou Ba nit yi kay ñoo naan ah non jubóol ak diw jubóol ak Abdoulaye Daouda Diallo wala jubóol ak diw mais boo ko waxee daan la kooku sama rakk la Abdoulaye Daouda Diallo kenn su ko dégg mu wax dara lu ñaaw Amadou Ba keneen ak keneen noonu donc ñun suñu biir parti démocratie moo fa am.